bisimilah inna wali yàlla mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax te di leen di siyaar eh, di am mbégte ak kontante ci topp bi ngeen di topp eh, la chaine leader sénégalaise 7 ci programme mu Màggal Touba xam ngeen ni ba safar bi dëgmalee ba léegi Sénégal 7 moo ngi déplacé wu eh, dëkk yi nga xam ni histoire sëñ bu mag bi Mawlana Cheikh al Euh, dëkk dëkk yi nga xam ni eh, sëñ Touba jànn fa te nag ñi nga ñoo ngi fii nga xam ni moo di Daaru Salaam nekk dëkk boo xamante ni daa nekk dafa bari ay taarix si yoonu murit sëñ Touba moom la njëkk a euh, di 18 safar mu tombeek ak Magal tubaa moo tax mu nekk dëkk bu ama am am solo tey dinañ dinañ ànd ak ki nga xam ne moo di sëriñ Balla ak sëriñ Codé ñi nga xam ne ay magub taalibe yi nga xam ne dañoo nekk si biir dëkk bi pour ñu gën ñoo xamal xamle euh, taarixu dëkk bi. jërëjëf ñu ngi siyaare baax mboolem ko xam ne mu ngi bàyyi xel Sénégal set di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal tawfiq ak tasiir di jëlee sëñ Mountakha Bassirou mi nga xam ni mooy kilifa ak murid yëpp waaye sant baax sëñ Ebo Mouhamad xalifa Cheikh Mouhamadou Mawoun mi nga xam ni penc mi moo ko mooy mooy kilifa gi. ak mboolem njabootu maam Cheikh Anta gi ak njab mboolem Cheikh yi borom Daaru Salaam yi gaawan yëpp ñu ngi siyaare ñëpp di leen nuyu. ñu nekk ci wàccaayu magal bi di bis bu sell bi euh, tey nag ñu ñëw fi nga xam ni moo di Daaru Salaam ñu bëggoon tuuti nga ñëwaatal ci taarixu dëkk dëkk dëkk bu sell bi di Daaru Salaam. waaw ah, jërëjëf ñu ngi siyaare mboolem ñi nga xam ñu ngi bàyyi xel Sénégal 7 siyaare si Assane Diané mi nga xam ni ci moom ngeen jaar. te man mënoon taxaw taxawaay bi ndax maamam Sëriñ Asan Jaane mi ngi ko tuddee daanaka kilifa yëpp moo leen jàngal def nga lu am solo nag mooy Daaru Salaam moom màggal gi saa ngi koy waaj su fi amul accès rek xamal ni déggoo Sëriñ Tuubaa wala déggoo màggal gi ndax yoon yi lépp daa daa démarré Daaru Salaam sëñ bi sañ ko talaata foofu nag ak juróom ñett ci safar loolu maanaam bisu màggal gi mooy anniversaire dëkk bi kon day mel ni bis bi. dëkk bi suñu doom ma ko sañ ci disu safar. Hmm. kon anniversaire dëkk bi daa dëppoog màggal gi naam anniversaire bi daa dëppoog màggal gi fukk ak juróom nga ne ki safar bisub talaata la ko sañc loolu Moussa Ka wax 1886 bisub talaata bàyyi ko Mbàkke Bawal ñëw fii waaye li gën ci sañc gi mooy yàlla moo ko digal yàlla moo koy doxal tuuti da ak barab bu sell boo xam ni ki mësu ko sañc nga sañ ko tuddee ko Daaru Salaam allahu innaka xudda simaami aw di la jëfartaxaal yi kon day mel ni yàlla moo ko digg na ko sanc ko bi mu ñëwee nag néeg bi borom gaawaa nekk mu ne ko néegu Sëñ Tuubaa fii fi la nekkoon ñu ne néeg ba mu njëkk a taxawal ko ñu daaj ko néegu quatre koñ la ñu ne six koñ la waaye daal moom mook mook borom daaru ak sëñ Abdourahmane Lo ak sëñ Mandumbe ak maam Cheikh Rafa ak gaawaan nee ñoo jàppoo woon néeg boobu dañ koy teg sëñ daamin boo demee ci wala fal sëñ Daaru Rahmaan Lo bi ñu ko sañ bi sëñ Tuubaa joxoon na ko ndigal na ko istixaaral ma xam fi la ki si feeñu sëñ Falloog Cheikh Moustapha yëpp boo xoolee kon dëkk bi day mel ni yàlla moo jox sëñ Tuubaa ko sañ ko ci bisu màggal yu Tuubaa muy bisu safar bi mu ñëwee ba installé wu pare na daa fi def maanaam première liggéey mooy jumaa ji dafa ne ko jàkkay sàkket ku baax ki moo ko rëdd daane yàlla baneetu aw naa bi arto yàlla tabax naa jumaa joo xam jàkk joo xam ni maa ngi yaakaar mu dem ba nekk jàkk joo xam ne dana ubbi mboolem jàkk yi mu ci àdduna mm. te boobu sàkket la booba waxul ni sàkket naa waxul ni seng naa dana tabax naa te boobu ciment amul fer amul waaye dafa ne bis dana ñëw mu nekk mu nekk tabax ah, kon pour firndeel say wax rek moo moo mooy mooy mooy mooy lii nii jàkk jàkk ji gis ngeen ni mu mel moo ngi yaaññi yaaññi yaaññi lool macha allah suñ toog njëkk ñaan bañ ko inauguré yàggul waaw yàggul ci euh, daa avant ñu màgg doo sàmm boo xoolee kon day mel ni ñaanu yàlla dina dem ba nekk jumaa yoo xam ne ñëpp ci teg seen bët te mm-hmm. loolu am na ñëw fi nag àggalee fi Masaalikul Jinaan Masaalikul Jinaan gi ngay dégg xës dëggoo ngay dégg fii da ko àggalee fii la ko àggalee waaw bi ñu jógee Mbàkke fii la Cheikh Rafal amee ngërëmam fii la ngërëmee Cheikh Rafal dëkk bi mu njëkk am moom koo ak jàkk ji njëkk am moom boppam mooy jàkk Daaru Salaam jàkk ji Sëriñ Tuubaa nodd masa nodd jii la mas fay jii la sikkar bi sikkar sikkarulaa bi murid yi def Sëriñ Tuubaa moo ko njëkk kere boobu Cheikh Rafal euh, sikkar ci moom sëñ moo moo moo moo guddi gi. histoire Sampal ku baax yi moo daan def di dikru laa dëbbe ñu koy aw. loolu gisaa la gars ki mu jox jox dëkk bi maam Cheikh Anta doon na ko ci. daan def saa yu ñu jullit ci weeru koor. ñuy zikru laa ba kera ñuy nod noddu gee loolu yaakaar naa ba léegi am na. bu ma saa noddu muru yee ba ngir anta ñu door a kàbbar loolu suñu tubaab la njëkk gisee moo waral ñu daan def ay saaru sikar. ba léegi nii guddi talaata. gars yi Samfal yaa ngi njub fii ci Darou Salaam ba yi fi ñëw di fi Samfal parce que day cosaan dëkk boo xool dafa dafa yàgg moo tax bi mu fi installé woon nag bu am fi ñaar at ci la ko yàlla wane leeru Touba suñu Touba fii la gisee leeru Touba fii la ko yàlla wanee lumière Touba mu dox mu ne ko gëlëm dem ba ànd ba gis buubu buubu ja wan ko tegtalu garab gi ba am sañ ci tubaa gii mu nekk nii waaye fii la gisee leer bi Rasulullah fii la ko njëkk feeñoo wan ko leero Touba loolu suñ kenn gelongal moo ko nettali 2014 kon day mel ni eh, bi mu naa na naa Zara Ahmadou yéen damaa siyaare sama kër gi nee na fii la woon ci néeg bi wan ko leero Touba mu daal dem Touba 1988 eh, sañ ko daal di jox seen gaawaan dëkk bii nii waaye ne woon na nag dëkk bi damaa jik ndax mooy bidaaya bi mooy commencement bi liggéey bi avant ma fi ñëw amu woon leen lu taxaw amu woon taalibe yoo xam am nañ liggéey moom moom saa bopp fu ñu dem ñu leen di xatal ak dina wane seen sëriñ moomul fii nii waaye fii mu ñëwee moom ñi nga xam ne lii Sëriñ Tuubaa moom fii tuddee këru jàmm c'est-à-dire maanaam eh, njaboot gi ko xawoon a jafe commencé installé di commencé am bokk ca Moussa Karim gane fi adduna Cheikh Fallou gane fi adduna Soxna Faat Jam joxoon ko kër gii ci ginnaaw mu nekkoon fi murid saadi xam boobu noonu c'est-à-dire taalibe am seen autonomie boo xam ni yéen ko ci Daaru Salaam te mu jóg amuñu ko boo xoolee kon day mel dëkk bi sëñ bi nee na da koo jig ma taalibe fii Daaru Salaam ayusuma maka inaka yàlla yàlla ma jàppandal la ma jafe woon ci Salaam ak mboolem dëkk boo xam ne eh, aman ak ginnaaw bi kon li ma mooy dëkk bi Sëñ Tuubaa wax na ni mooy dëkk bi nga xam ne moom lañ njëkk amal boppam moo ko may li am moo ko wan Tuubaa moo ko wan eh, maanaam taxawaayam bi mu wax taxaw ci wàllu yar ak jàngale moo war a mën a wax naan yàlla sant naa la baax a baax di yéen di sant nag bu mu ñëwee bu mu jëmee Sénégal ma sant Daaru Salaam ak Tuubaa nawaytu sukkuruhu lala Daaru Salaam waa ànd Tuubaa bi gis ni waqilaam suñu fa waxoon na ni ci xasida googu noonu bayit boobu noonu Daaru Salaam ku màggal a ja Daaru Salaam day mel ni nga dem màkk demu Madina moo tax mag ñi ak ak ak mboolem organe presse yëpp saa yu mag jub si dañuy tàmm defee defee reportage reportage fii boo xoolee reportage boo xam ne nga defee fii ngir lan xam ne mooy mooy bidaaya bi fi nga war a jaar door dem Tuubaa wala boog. waaw waaw mooy caabi ji waaw macha allah kay mooy caabi ji tax parce que moo ma ubbi yoon yi bi suñu Tuubaa jógee géej fii la ñëwoon. ama gis Touba ama dem géej fii la ko yàlla maanaam wane wane lero Touba ko moo tax kon mooy mooy li nga wax léegi mooy caabi boo xoolee jëmmi Touba mooy caabi yoon waaye mooy caabi boo xoolee màggal daf màggal gi bu li amu woon màggal du am ba mu woon dëkk bii nii ba yàlla wan ko Touba kon boobaa kenn du am Touba kon demeen dëkk bi gisaaleka da koo jik mu nekk dëkk boo xam ne da koo da ko bëggoon lool yëmu ci mi nga ko mayee si ngaawaan it te may na ko pare waaye diiraa gi da ngeen yàlla yàlla naa di sama dëkk boobu te na ko pare Euh, kon day euh. xam ne may kon day mel ni mook Cheikh ñoo bokk ay bagage ndax may na ko waaye teewul mu ngi naan yàlla naa del Daaru Salaam nañ ma fa gannalee nañ ma fa siyaaree nañ ma fa dégg nañ fa dajeeg man te loolu fekk na maye dëkk bi. Euh, ñoo ngi jàkkaaroo li nga xam ne moo di cimetière Daaru Salaam mm. bëggoon nañ tamit xam tamit taarixu cimetière yi mm. ndax sëñ bi moo ko rëddal boppam wala. waaw waaw jëmmi cimetière yi muy jëmmi armeel yi nii. sëñ bi bi mu fiy nekk booba nekk woon nekk woon booba ay armeel waaye nag am na yéer gu nekk ci biir goo xam fa la daan wéeru am na ñu sax yéer googu fa la àggale masar ginnaaw am ñu wax loolu am na ñu wax loolu waaye àggale googu am na suñu sàmbay wax na ko wararoo yaa xin taxqiq nañ ko ba tey it foofu nag booba mu nekkoon toolu tokkóor woon toolu ñàmbiloon booba jamono jooja toolu Cheikh Fall la woon waaye ci hadis yi mutawaatir hadis jokkalante nee nañ Cheikh Fall waxoon na ni maam Cheikh Fall bis dina ñëw bii barab bii bari ay ruu yu fi denc. waaw ah, ah, waaw ah, mboole armée yi mu rëdd yëpp ba ci Touba ba ci Njaareem yëpp ay ay tool la woon waaye wax nañ ni ku baax ci mas wax ne ni maanaam armée yi kuñ fi denc dina laaj. am na ñu ne ginnaawam bi mu jógee géej am muy làqu joxe na ndigal ñu def fii armeel yi 1917 lañ ko sancaat xam nga bu ko sancaatee wax na ni nañ rëdd maam penku bii comme juma boo xam Daaru Salaam ak Njaaréem seen seen seen armeel yi ak juma yi dañuy ànd ñoom Daaru Salaam ni mu ci penc mi juma armeel yi Touba penc mi armeel yi Njaaréem penc mi armeel yi ñu ne si Touba 1917 bi ñu sancaat ñu pour ñu sancaat ko loxo si mut maam nee nañ moo joxoon ndigal pour maam ñu rëdd armeel yi nii waaye jamono ñu fi nekk 1886 moom boobu moom day armeel moom waaye après bi mu jógee géej nag moom lañ ko def armeel commencé fay denc. ñu ni moo joxe ndigal yi ñu def ko ay armeel. waaw fii daanaka boo xoolee doomu maam Cheikh Anta bari ñoo ngi fi. si Ibra Ndar Serigne Sam Serigne Abdou Gora ak maanaam Serigne Ibra Assou Thiam maam Cheikh Anta ku dul ñi nekk fii ak Cheikh Ibrahim Gaawaan yi Serigne Mayoro Fall mu ngi fi. sëñ euh, kazalika Cheikh Ibrahima Dia moo fi kazalika sëñ euh, euh, Massamba Dieye sëñ Massamba Gueye Njorno ñoom ñëpp Cheikh borom gaaw ànd mu liggéey ñëpp ak Baye Fall sax am nañ ci aar woo xam ñoo ko moom ci Daaru Salaam kon tamit ñi fi nekk ci ay kilifa la toa wala tuxsa boo xoolee jëmmi maam Cheikh doomu jigéen soxna màggat ñoom soxna Sooda Mbàkke maam Cheikh ñoom soxna Xadi Mbàkke maam Cheikh ñoom ñëpp ñu ngi ci biir sëñ Mbàkke Assu sëñ sëñ doom si biir maamul la sëñ Asaal doomi sëñ kadalika euh, sëñ tàkku la sëñ euh, Mudu Xalim doomi sëñ Aafe la demee daal li fi nekk ci ay kilifa moom so sëñ bi euh, daanaka mën naa kilifa yëpp yi àndoon maam Cheikh Anta yëpp wu gis damay dégg ñu ne baatu cheikh si yoonu murit waaw maam Cheikh Anta njëkk a seexal awlu man suyaxa ki njëkk a seexal mooy sëñ gaawaan booba daaw ñu ko wooyee Cheikh Anta ñu daan wooyee Sidi Muxtaar mooy turam xam nga xaqiiqi waaye nag bi nga ko seexalee ñi naan seexal nañ doomi Anta Njaay ja ba gaa yi dagg baal bi naa Cheikh Anta parce que Cheikhum Anta Njaay daa xaw gudd te wax daa bëgg turu gàtt ñuy Cheikh Anta mbooleem kuñ seexal bi ñu naan diw de defal nañ ko ne defal Cheikh Anta seexal na ko ne ñu seexalee Cheikh Anta ba yàgg ñuy wootee baatub Cheikh waaye mu ki njëkk a Cheikh njëkk a jébbalu dëkk njëkk màggal njëkk a dem màkk ci mbooleem ñu sant Mbàkke waaye sa lekka njëkk a àggale liggéey suñu muy dem Gabon njëkk moom xasaayid yi mooy si ngaawaan loolu moom yàlla ko def moom yooyu yàlla ko defal muy ki njëkk a seex njëkk a njëkk raam xasaalikaay mooy ki njëkk amu màggal si su moo ko fekkee màggal gi Daaru Salaam suñu tubaab moo ko fekkee te màggal la kon moom njëkk amu dëkk moo njëkk a seex loolu moom day mel nii daanaka mboolem ñi xam ak ñi bind ci wàllu làkk yëpp arabe ak français xam nañu ak wolof suñu seex si ngaawaan moo ko a def mu njëkk am doom joo xam ne suñu tubaab daal ni ji amul bàkkaar Seex Muhammadu Maamun moom rek moo ko am doom joo xam ne Sëriñ Tuubaa dañu kii amul ci mbooleem génération am yàlla ko ko defal loolu moom Cheikh daa njëkk daa njëkk a séddu nag daa njëkk a moo tax barab bi nag nun li nu ci dégg te jàpp ko te mu doy nu te nun nu yaakaar ko te fas fi yéene liggéeyal sëriñ bi te ñaan yàlla laq si ngërëmu sëriñ bi mooy dañoo wax ne sëriñ bee ko sañc rëdd ko ci tànkam bu tedd wax ni néew ma kuy tooñ di fi dugg waaye kuy topp tooñ di fi dugg loolu it li nur nur lu yomb li gën a wér te gën a doy mooy nañu tënk ci ak jub tey jaamu yàlla tey diglu ndigal ndax barab bi sa ko jox sëñ Tuubaa ci ndigal sanc ko ci dara ji Seydina Ahmad sallallahu alayhi wa sallam sëriñ bi wooyewuñ fi nuy commerce wooyewuñ nuy bay wooyewuñ fi nuy sàmm dañ fee woo ngir bëgg a raw rawaleen sëriñ bi moom raw nu ñi noo ci des kon nag li mu bëgg mooy nu tënku ci ndigal yi te moytu tere yi bu nu bëggee gis sëriñ bi bu ëllëgee wala mu doon ci noonu dara dañuy nangoo liggéey sàmm ko sunu ngor loonu am mu doynu di jaamu yàlla leenu man sunu kem dalaayal kattan la ca des coobare sunu borom la mu eggaleel na ko su ko defee bu nu ëgsee fii leen lu nuy ragal duñu ko teg bët ku dugg daaru salaam raw nag yomb na ci aw làmmiñ waaye du caa génn ku jóg dugg daaru salaam ndax boo nekkul ci la nga war a nekk defoo la nga war a def yàlla mën naa dogal jàpp nga ni man ngaa ni Daaru Salaam waaye doo fi ne ndax sëriñ bi moom li mu wax wér na képp koo xamante nii ci man nga man nga aju dangay nekk ci li ma nekk moytu li may moytu sax ci samay ndigal sax ci samay eh, santaane te moytu samay tere sa sëriñ bi terewul lu yàlla terewut terewul lu rasul lay terewut diglewul yàlla wul diglewul rasul lay wul foofa rek la teg tànkam kon nag ñun ñëw ni ko da bëgg foo jëm jëmeenu fa danoo war a góorgóorlu ci ndigali sëriñ bi te moytu tere yi as gor nag su waxagul moomam boppam waaye bu waxee moomatul boppam kenn ku ne ba nga jox sëñ dem ci nit raam jox ko sa bopp ni ko sëriñ bi laa yaakaar sama di yoolaa sama digganteeg moom ba mu nangul la ko lool yaa koy sam xool sëriñ bi la mu ne ci ndigali yàlla yi nga ko ca la nga xamante ni mooy tere sa borom bi nga di ko moytandiku bàmmeel nag ku jàpp ni da nga fay dem kenn di la yan wala mu di la tungoom da ngay nax sa bopp kenn ku ne sa pas-pas sa digganteeg sëriñ bi sa jaamu yàlla kemte la ko yàlla digale ak yërmande yàlla ju wàcc ci sa kaw ak ndimbalam moo la fay jariñ waaye amul ku tëdd sa blal di nelaw képp mënoo wàcc kenn du la mën a yëkkati waxuma laa nga dugg bébu bàmmeel kenn di la fa fekk lu la fa waay déglu dul sëriñ bi loolu wóorut nanu yaakaar sëñ Tuubaa te tënku ci ay ndigalam te moytu tere yi barab bi nag nee na kuñ fi denc dañ la jéggal waaye nag ana kuñ fiy denc ndax dañuy même particulier ku ñoom ñu denc la fi ñi fi denc dañ koy tànn ki nekk ci li sëñ bi digle wala nga liggéeyal lislaam lu la sëriñ bi gërëm wala lislaam gërëm la koo koy ne Daaru Salaam waaye nit mën nay dund di tudd Daaru Salaam wala mu di ko yakar waaye bu dee du fi ñëw asalaamaaleykum